bu leen nelagaan li may nelaw nelaw du man ma yeete li may gëlëm gëlëm du tee man ma woote amaana kuy nelaw nelalu ngi reer waaye bu dee yeete duutul yandoor bu leen di fàtte yàlla ak yaa atta yaa sañ-sañ ak mbugal yaa kattan gu ànd ak coobareem te lay jëf loo gis ma xew ñu dee ponul dogal bu am day la kooki xew-xew ngir ko gisul war naa la kooki xew-xew sala ka doo ko gis ba xam la muy def loo xejji xejji buur ba làq la yow te gën a xëjee gën a gis la tam ku njëgi bi baay gën a gis kii ya te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaar combattre muy ku muy baal te la ka xëy ba lay musibaal lay musibaal lay musibaal la ka xarit ba lay musibaal ngir dara jaar combattre muy ku muy baal la jox xarit ba ci maqaama te mënu koo jëf ay nattu lañ koy xayma te mbala laa woon ba jox la mbir ba mu ba aw ca tànki mbër ya lanab luwaanukum li saabirina aasiban naasi lil kaasibina moom lan waxoon yonneen ya ak laf daxaal ya ak xutbu yaag wàllu yaag law taad ya soo xalame soo xalame mbir ya amoon ca baawoon mbirum sëriñ gaaweef ci baatin seetal borom muñ gën naan ayooba ayooba sax yaa ko daa xëccoo di wat nii koo te téewu koo sant di wax alhamdu moo tax mbay la naan ko nihmal abdu seetal ma daaniyel ma daanu ci teen ñu boole ko gaynde ya yeew ko ci kenn gaynde ya faf di mar yaram ma muy ree ñu far ko jàngal saar ya rab yay waare yax yaa nattoom ba duutul am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp har jemma jiyaani gaal yo xiyana tamba yo xiyana tamba ci Sénégal yo xiyana tamba bëgg Seyduna Muhammad yo xiyana tamba dootul am ci Sénégal noonu yaa ko jàpp xar jëmm ji yaari muy bëgg a wax yàlla yëbal Jibril ni ko bu ne eh dootul def marsom soo xala ma maam sunu ibrahima bam laatam xalilan ak xalima noonu ma gën nañ ko muy bay faala ba yàlla rendi la ko ismail ñu dellu taalal ko ba nag namroo sa dëkk ca biir yàlla seral sorom sa seeteen ba ñu naan yaa gumba na ay at yanqooba gumba na ay at di palantu néeg ba dadaa sémbooy rongoñu gannaaw ba yuusufa sankoo fum jekke saxoo yaa nga safaa soo xalamee soo xalamee yuusufa ak mbokkam ya dellu xalam ka somba ak tumbaam ya dootoo ragal pour illaahi naasi doo yëg ya xalaate nit ba xam xanaa nattu bi day yokk ay maxaamaay mbaa muy sukk yi ñaaw tees xiyaama nattoo bi kër karaani awliyaayi ku weddi laajal xayru lan mi aayi Seydina Muhammad Seydina Muhammad noonu yaa ko génn màkka ngir diine bi isni rabbi la dem Madina Sëriñ Ahmed fanaan na ci xunt fanaan ci ay lu nekk ñuy daj Sëriñ Ahmed faj ko tàbbal nañ ko sarwaan jox nañ ko tooke tiwu ko duy kéemaan Sëriñ Ahmed Seydina Muhammad bëgg a tàggoog bàkkaar bi ngeen taxaw di màggal Seydina Muhammad faj nañ ko ci amaameeg faj nañ ko tàbbal nañ ko ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke teewu ko doy kéemaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaxi mocce ko xayru naasi bisu keroog la yàlla daane kéefër yëkkati lislaam loolu doy na tiitar duniyaa xanaa moo di sijjurul muuminiin wa jannatul kaafiriin ñii ñaar dun ma ne dogal ba yàllaa ko def te xam naa di ay biiw soo gërëmul gërëm naa seetal sama baya rafaal jaraw nag yow ko la bañ dina lakk yombal xiyaam ku fa lekk dala ba ñoon te tuubu ko ndax yaa gis la bur làq ji law xil ma faal ak law xil ma kunaani yow toloonaas Cheikh Ibra Fall yow toloonaas Cheikh Ibra Fall yow toloonaas yow mi fanaani murti maa te mën a boot Cheikh Ibra fa jël suñu aajo yaay borom i mbóot Cheikh Ibra Fall yaay nag bi Cheikh Bamba njëg murti waaju la ñàkk yaa yaa moom looy yaa moom Faal Cheikh Ibra Faal Cheikh Ibra Faal ana ñu bëgg maami Cheikh Amdi Khadi borom daaru Mbay Rafaal maami Cheikh Modou Fall Rafaal yaay ñag bi Cheikh Bamba ñag muridi Cheikh Ibra waaju la ñag yàqu yaa moom ruuyi iñaan day lakk lu baax ni sawara di la keng mat man sopp naa Cheikh Ibra Faal amaana waaye weddi ko ngir aw jàngam te ko ko su lii doy naa gëm Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall am ngay dërëm Cheikh Ibra Fall am ngay ngërëm fop say dërëm jëndee ngërëm yow laa musaam sàbbal këram Fall aju ni daa nga joxe Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall ajmi daar nga daa joxe bismillaahi abtadi saa way bi man li sanadi wasilati mooy sayidi cheikh murtadaam cheikh saaliw ana ñi bëgg borom jàppandal borom daaru minam borom alimul xabir borom daare daaru tansiir borom jannatul maxwa sopp cheikh murtadaam sëriñ saaliw bismillaahi abtadi sa wee man lii sayidi wasilati mooy sanadi Cheikh Mourtadaam Cheikh Saliou Cheikh Mourtadaam Serigne Saliou ndëndal ngërëm naa ko tëggal ndëndal ngërëm naa ko xotti baax ka tey fësal ci saab galañ delloo njukkal Cheikh Mourtadaam Cheikh Saliou ndëndal ngërëm naa ko tëggal Murtada ana ñu bëgg borom jannatul maxwa du bind ñu màggal Cheikh Murtadaam Cheikh Saaliw ndëggal ngërëm naa ko tëggal ku xotti baax ka tey fësal ci saaf galañ delloo njukkal Cheikh Murtadaam Cheikh Saaliw bu dee ku baax yeyoo nga way ku xotti baax mooy gën a yey ku xotti baax mooy gën a yey yow man ma way la tey Cheikh Murtadaam Serigne Saaliw ngir jëmmi seexi Murtada way Mbakke yaa tax ñu may teral Seex Murtada Sëriñ Saaliw na ñëpp def nii ñu màggal sunu jàmbaar ja Seex Murtada yow de Mbakke yaa tax ñu may teral ay Mbakke yaa tax ñu may sagal fu ma jëm ñu teg ma ca kaw jëmmi seexi Murtada su ma génnee di dem ñu naan ma waajaa ngi nii te yaa tax ñu naan ma waaji waaji waaji kenn la te moo di seexi murtadaa man su génnee di dem ñu naan ma waajaa ngi nii te yaa tax ñu naan ma waaji waaji waaji kenn la te moo di seexi murtadaa yal nañ fi yàgg te wér na ñëpp ni amiin ci darajay muhammadul lamin yal na nga àggale yal na nga mottali sa yéene ci darajay say xisaali ñu ngi jég lu baax